Euh, loolu dañ koy yëkkati jox la ko yow jaaji euh, waaw alhamdulilah jërëjëf ñu ngi rafetlu bu baax laaj bi ndax euh, am na solo lool loolu moom lu neex a la ndax yonent bi dafa waxoon ne jamono dina ñëw woote yi dina dina bari waaw kaddu yi dina bari waaye nag kaddu boo leen dégg bu leen gëm bu leen weddi waaye nag da ngeen gëstu ci alxuraan ak xadiis kon defe naa ni boo laajee ci ngëm tey jii bu ñuy wax ngëm suma ma juumul juróom-benni ponk la bu ci njëkk mooy imaanu billaahi mooy da ngay gëm yàlla wa malaykatahu nga gëm malaaka yi wa rasulihi nga gëm yonent yi wal kutubihi nga gëm téere yi wal akhir aaxir dëggal bésub yowmal xiyaam bu ci gën a jafe nag bi moy wal xadire moy nga nangu dogalu yàlla kon loolu noonu mooy gëm juróom-benn yooyu noonu bu matee ci yow doon nga ko gëm yàlla waaye nag bu matul ci yow nga yëg ko ak nga ñàkk ko ñu introspection xool ndax tey doomu aadama mun naa gëm te gëm googu noonu mu tegu ci kumpa loolu noonu damay yaakaar ne alxuraan nangu ko xaddis nangu ko xelu doomu aadama sax nangu ko ndax boo delluwaatee ci alxuraan suñu borom mu ngi wax ne alxilmu huwal imaam xam-xam muy njiit kon nit ki lépp loo xam ne ni mu ngi koy jëf wala mu ngi koy wax dafa war a tegu ci xam-xam. te boo demee ci laxdariyu ñu ngi wax ne yellul ci muskallaf mu jëf te jëf jooju noonu xamul la ca yàlla atte waaye nag yemul foofu noonu dafa ne nit ki bu xamul na laaj boroom xam-xam te loolu nga wax sànq al woo warasulatul anbiyaahi boroom xam-xam yi ñooy doonu yonent yi kon ban xam-xam moo lay jëriñ sa diggante sa borom ban xam-xam ak mooy def ci yow ak ngëm xam-xam boobu noonu c'est pas une une connaissance exotérique mais c'est une connaissance ésotérique ndax xam-xam ca woy xam-xam ya dañ ko séddale ñaar muy saayir ak baatin baatin boobu noonu nag moo lay leeral sa diggante ak sa borom moo lay leeral sa diggante ak sa bopp moo lay leeral sa diggante ak sa morom te euh, balaa ngaa jéggi waaw da nga laal ñaari connaissance nga ne baatin la ak saayir ak léegi dañuy njëkkee ci bi nga xam ne moo lay leeralal sa diggante ak sa borom ndax lu ñuy ut la di ko am wala lu ñuy sàpp la ci téere yaakaar naa ni loolu noonu lu ñuy ut la di ko am ndax bu nekkul woon lu ñuy ut di ko am yàlla di wax ci suratul maahida aya 35 ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wattaqu ilayhi al wasilata mm. wa tujaahiduuna fi sabilihi la'allakum tuflihun yéen mi nga xam ni gëm ngeen ma te ragal ma dem leen wuti wasila mu ne wasila boobu noonu nag ngeen jaayanteeg moom ci yoon bu mu leen tëralal kon wasila boobu noonu ak saa lu am la nga war a jaayanteeg moom jaayante boobu noonu nag ak moo indi diggante sëriñ ak taalibe parce que taalibe. baatu taalibe mu ngi jugee ci al talabu mooy ki nga xam ne ni mooy mooy aji sàkku mooy l'aspirant kon li nga ki nga xam ne ni mooy sàkku li nga xam ne ni mooy loolu lay sàkku loolu noonu mooy baatin te baatin boobu noonu mooy indi sellal jëf ndax yàlla moo ko wax xooluma ci seen jëf biti yi waaye nag li ci biir lay xool te li ci biir yaakaar naa ni mooy xol te yonent bi loolu la wax ci xadis mu ne benn lum mu ngi ci nit bu setee léppam set na bu tilimee léppam tilim na te nee na loolu noonu akasa mooy xol te xol boobu noonu li koy raxas lenn képp la mooy laa ilaha illallah moo tax yeneen bi ne nañ yéesal suñu ngëm ci laa ilaha illallah kon loolu noonu yaakaar naa lu leer la ci ngëm bi nga xam ne nii moom nga laajoon sànq ngëm googu noonu borom xam-xam yi dañoo wax ne dafa am ñaari xeetu ngëm bi ci dëkk mooy imaanul badiha mooy gëm bi ngëm bi nga xam ne nii ngëmu tàmbali la. waaye nag ngëmug tàmbali googu noonu doo ci yem ndax ilmul yaqin dafa am xaynul yaqin dafa am waaye nag xaqul te loolu yëpp alxuraan indi na ko xadis indi na ko waxi góor yàlla yi indi nañ ko kon xaqul yaqin boobu noonu mooy une science certaine science certaine boobu noonu ci lenn képp la nekk mooy ci laa ilaha illallah kon diine amul lënt addiinu nasiha diine amul lënt kon lépp loo xam ne da nga koy jëf sa diggante ak sa borom dafa war a leer te ngëm googu noonu muy gëm yàlla gëm malaaka yi loolu yëpp dafa war a leer te lenn te lenn képp moo la koy may mooy sàkku leeru laa ilaha illallah te loolu ñu ngi koy amee ci diggante sëriñ ak taalibe. xàq saa euh, kon. Euh,